jarbaati noon yi ruus nañ la noon ya bëggoon dalu la maami noon ya ruus nañ la noon ya bëggoon dalu la rakki noon ya ruus nañ la noon ya bëggoon dalu la <laughs> sama gars yi non finalement j'ai retrouvé le sourire quoi sama gars yi démb sama xel daloon dafa gën a dal tey bi ma seetaanee Pape Alé Niang quoi naam seen non dama bëgg dama bëgg parce que xam boo dégg ay waxi dof da koy xam quoi dama dégg ay waxi dof quoi ma xam ne ñu nag ñii ne procès verbal bi amuñu dara dara dara amuñu ko xam nga nas musul mu ma gaay amuñu dara mais amuñu dara ba pare boy bi waxi dof waxi dof man legi xoolal su ma nekkee nit suma ma nekkee nit ni ma nekk ak nit mu mu mu fen ma duma ma nga ko da fen de dama ka boy baye yaa ngi aji sar rek way ma boy baye ya da nga aji sar rek li aji sar la jël boy ku fiñ fen rek ma boy da nga aji sar mo pëtee gën legi parce que boy bi dafa fen na fen na fen na fen non chapeau à Pape Alé Niang quoi vraiment Pape Alé mu nekk ben benn benn détective privé wala mu nekk benn gain ba Pape Alé Niang mën na nekk juge ah parce que il analyse bien quoi moom bopp bi bu ñëwee na tey moom ci procès verbal bi Pape Alé Niang dëmm la nag xam nga loolu dafa grave Sonko même gars yi policiers yi ko war a jëlee di ko garde à vue moom la ñuy bëggee ñu demoon kër góor gi sax xam di kii ni dañu dañu bañ rek parce que tey ji maanaam defañ serment quoi mais Sonko ñu koy bëggee policiers yi gendarme yi juge yi ñëpp ñëpp à part euh, a un ko Trump waxee non non non on a on a un très beau pays une très belle population tu parce que très belle population moo waral tey ñu leen jël Sonko gars yi teg seen bakkan donc j'ai un très peuple sama peuple dafa nice sama peuple dafa nice le Sénégal merde bi xam fan la mooy c'est ce qui dirige là c'est la vraie merde ñi ñuy diriger c'est la vraie merde parce que lu leen neex la ñuy def lu leen neex la ñuy def man li ma mën a comprendre tey jii mooy euh, li ñuy tàmm ni quoi li balaa ma ñëw si loolu ma ñëw si cas yi quoi cas yi pour digg cas yi quoi maanaam tey jii yow daal boo boo ànd ak ñoom rek dañ lay créer l'affaire quoi tu vois tey jii boo jëlee boo jëlee damay commencer si histoire du Cheikh Béthio lay Wade la àndaloon di bëggee ne Ablaye Wade moom laay def lépp gars yi jël ko Saint-Fil à travers un fait yoo xam day am yëgul tinul ah yëgul tinu ay kiiwam def affaire ñu jël ko andosé ko ko créer ko jaay ko doole tu vois parce que lan il a eu le courage de dire que mo blay wa dal andal ñu ñëwaat ñu ñëwaat kay quoi pour du suñu régime bi ni xolal ni ñi jël affaire ñu ñëwaat demal ba ci yàgg ñu jël Khalifa Sall parce que tay jii mom Grand yof Dakar nen Khalifa Sall moko mom mu len mu len déranger tu vois yemuñ ci acte 3 mais ñu lañ koy jël topé ko lan ay affaire yo xamni moy lo xamni tay xam ancien maire yi defoon nañ ko muy maire yu yàggee déggoo ma de muy maire yu yàgg yi lu ñu doon def tey ji loo xam ne Pape Diop def na ko ñëpp def nañ ko mais ñooñu intéressé wuñu quoi waa ji parce que amatuñu aura bu ñuy ngénte sax euh, ci ci nu laaxi du kii amuñu amuñu people mooy li ma wax naan tey ji li li ñuy sonalee Sonko yi c'est que mooy yëngal tey jii ñoom Barthélemy Barthélemy mën na di saaga ko neex bi ñu faale Barthélemy parce que ne tey ji amuñu people kan mooy yëngal mooy dof bi tu vois jantal booy bi muy muy Sonko léegi ma ñëwaat sama sujet tey jii ñu ñëw def loolu euh, Khalifa Sall accusé ko jaay ko doole tëjaat muy deux cas bi muy ban avant avant avant troisième bi Khalifa Sall mooy troisième bi ñëwoon ci Karim Karim il a eu la muy lan man j'ai une contre toi ban dent laa am ak mooy yaa ma toroxloo yow yaa ma toroxal yow Karim Wade yow yaa ma toroxal tu vois parce que yow tey jii yow yow bu ma bu bu ma daaxee assemblée yaa taxoon sa papa bu ma jàpp Karim pëkëj pëkëj Panama Papers yaa euh, ngi fi euh, Singapour Papers Guédiawaye Papers dafay affaire finalement la montagne a accouché d'une souris tu vois amul benn kii ñu jëlaat ko tekk na rey ko politiquement léegi ñu ñëwaat Sonko ñëw du ñëpp la ñu boote soleil Sonko sënu njaago la nga bootee dafa am bàjjan am ñaan tu vois ñu jël ko léegi ñëw bëgg boxoñewaat ni kii dafay jeex parce que kii mooy ki nga xam ne tey jii maanaam moo ñu mën a traiter am troisième mandat moom mooy yee mooy dof yi Sonko moo leen yee donc kii foo ñu éliminer ko ñu jaar côté religion ñu jaar côté religion amuñu dara ñu jaar côté finance amuñu dara léegi ñu la ñëw nañu ñëw côté mœurs ñu ñëw côté mœurs si lañ xaw a réussir tuuti nag coté mœurs bi parce que gars yi xaw nañ tenu eh, technique suñu image mais xam nga tey koy yàq bi fekk da nga koy defal da nga defee nit da koy yàqal fekk yaa ngi koy defal parce que tey ji Sonko dafa amoon kit u double li naan kit u double ça passe ou ça casse kit u double mais duub la parce que tey jii Sonko fu mu ne nii ne nii ak li Pape Alé booy bi wax ay Sonko ku daan douter si moom sax parce que ils ont réussi à un certain moment de semer le doute De semer le doute mais Big Pape Alé Niang génne ba gars yi dégg waram xel yi xam ne lii nag lii si Pape Alé Niang naan film Netflix waxi dof la booy bi waxi dof la tey seen kii dafa cuune fu ne nag ñoom jox lañ crédibilité à 1000 Ousmane Sonko. fu nekkee nii bu ñu ba dans la dans les prochains jours ba fii ba 2024 bu ñu ne Sonko fekk nañ ko muy lekk ni demoon sax gars yi naan waxi dof parce que ils ont réussi bi moo seen last cartouche te ils croyaient que ni bii nii. waa ji du tamit day daanu par force mais loxol yàlla ñu sant tamit di di euh, tamit maanaam tey jii euh, passé fu Sénégalais yi ah, seen pas-pas ak bëgg bi parce que loolu yàlla def loolu ci ci xolu nit ñi donc man daal li may mooy maanaam tey jii euh, kontaan naa trop si Pape Alé Niang dof parce que booy bi tey moom boo xoolee si projet bi jël leen nag parce man du ma ay cinq minutes rek ba kontaan xam naa ne li si jëlul ma koy yëgal waaw parce que tey jii su booy bi tam y' a beaucoup d'incohérence tu vois man yow yow nee nga Sonko moo la message avant mu fay ñëw Sonko moo la message avant mu fay ñëw demaat ci biir enquête bi Sonko sa numéro sama numéro kon message bi nu mu kon message bi nu mu amee nan la message bi amee loolu lay laaj la message bi amee ah Sonko bi may maase ngay wax naan gis nañ le 22 ak le premier benn bi ñaari maase yi ñu fa nekkee ah maanaam sama copine bi mu mu mu <laughs> mu génn bàyyi ñu ñun ñaar parce que Sonko moo ma def signe. kon kay loolu mooy càcc gi ngay càcc gone gi neex na ndeyam neex na baayam waxi dof waxi dof te démb laa toog ne dof mënul weesu yow nga ne da ngay accuser Sonko euh, viol parce que mënul may tamit yow mais man mi nga xam ne maa gën a con ñëpp man naa dem salon de massage terrain inconnu ma dem man maa ngi fay violé koo xam ne ne maa ngi fay violé loolu nit mais kii gën a dof ma Sonko loolu loolu loolu c'est insulter l'intelligence de Sonko quoi boo demee ba naan Sonko dina salon de massage di fa violé nit ah salon de massage jëkkër ak jabar ne fa ak ay doom famille Sonko dem fa di di violé nit bu bu Sonko fa tàccoon Ousmane nii rek Sonko dara bi yàqu na de ñu ñu tiimal ko noonu rek loolu intelligence ñu jël boobu noonu ah ñu ne koy bu Sonko ñëwatee sax tàcc ko nekk wuy yaa may siif boobu sax moo doon gën a crédible mais boo demee ba naan dama siif ak yi nii là tu deviens débile tu vois man su ma doon su ma doon machine su ma doon def machination danaa kaan booy xam naa ne waa ji du sedde quoi mais bu ñëwee ba soo ko duggee rek ba simi simil sa benn o sax ne wéy ma ngi may siif léegi bu ko waa kër gi déggee sax ñoo xam ne boobu c'est crédible la boo nee ah ma ngi ko doon siif mais abu tiiru mais boo demee ba naan ay dafa am naa am ndoxam ak ay couché nañu ak yooyu noonu laa nag ça devient banal moo tax vous êtes des cuune ay ay médio ay kii ngeen kay dof ngeen mais loolu mënu leen ko am intelligence mënu leen ko am parce que vous êtes des fous tu vois ay dofa leen ay dofa leen jiite donc kontaan naa parce que tey ji maanaam fii lañ mënoon doxee ñàkk suñu crédibilité bu ñu waxatee ba police bu politicien ñëwatee di wax waxi dëgg parce que affaire bi li si doon grave moo li si doon am moo grave mais maanaam de huit ans bu waa diaspora bi def waa diaspora bi def travail bu colossal travail bu grandiose mu ñëw mu nar a yàqu ndax benn tàkkusaan benn travail encore mooy Ousmane Sonko ñëw fekkaat ñi gëmul woon politique ñi nga xam ne jàpparoon ne politique ay fen kese mu joxaat leen confiance bu Ousmane Sonko ñëwoon bàyyee loxoom fii kon keneen ku ñëwaat soo waxee da nga ah gis nañ fi Sonko moom huit ans defoon mooy baax gis na fu mu daanoo donc y' a tout ay enjeux yu Sénégal avenir u politiciens yu véridique yi ñëwaat ak yeneen yeneen donc non foog yàlla foog yàlla jàppale ñu waaye non non non yàlla yàlla muy ci kaw nag yàlla muy ci kaw tu vois donc bëggoon ngeen ñu yàqal mais vous nous avez rendu plus fort tu vois on est comme un phénix on est on on on a on koy waxee noonu renaître de de nos cendres donc bàyyi bëggee bu baax quoi sama xol dafa sedd quoi vraiment sama xol dafa sedd su ma xoolee incohérence yi am ci procès yeeg lii non te nag uma ñoom bu ñu bàyyee si ñun ñu bàyyi ah levé leen immunité bi non levé leen ko parce que ñu bëgg mu leer ah dañu bëgg xam ne yéen vous êtes des yéen vous êtes des ay fenkat ngeen ay ay soskat ngeen ñoo xam ne dirigeant sénégalais yi ay fenkat lañ ay setkat lañ ay manipulateurs lañ quoi mais comme ça ni ni nañu baal non non buutuñu baal non nañ dem li ma levé leen immunité bi léegi on veut un procès comme que yéen léegi daw ngeen 94 milliards daw 6 000 milliards léegi ñu bëgg montrer kii ñii c'est des menteurs waaw loolu lañ bëgg quoi parce que bu ñu ñëwee naan non nañ ko bàyyi comme que daw nañ coow rek nañu continuer nañu lever immunité euh, kii bi euh, kii bi parlementaire bi léegi ñu dem procès comme ça on saura les le vrai visage de ceux qui nous dirigent quoi non vraiment vous êtes vous pathétique sama gars yi doo leen ko sama kanam bu ñaaw génn <laughs> maa ngi ñëw sangu waaye parce que cinq jours sanguma da ngay xëy naa nag mii du ma ma xel moo toogul quoi xaw ma sax ndax su maa ngi lekk wala lekkuma perte naa vingt kilos non parce que vraiment gars yi di ci profité sa waa ji lii di mbalak affaire yi noonu quoi mais time will tell quoi tu vois te li wutoo xam yàggul sey Sonko eh 2024 leer na Macky Sall 2024 jarul ngeen ngeen def leen passation de leer na fu ne nii Sénégalais yi fu ne nii am nañ ay yeneen des millions de voix rek waaye yokkaat ngeen ñu doole vous ay waay waay waay waay ay waay yàlla buy yàq day mën na koy defar waay buy defar day mën na koy yàq waay fan yi xawoon naa xat naan fu ma jëm wéy fu ma nakati o yàlla dégg la day doole doole ji ay yàlla maame noon yi ruus nañ noonu yo bëggoon dalu la jarbaati <laughs> sa gars yi eh, di ko may eh, nday Cheikh fu la ci France quoi bi